créé Yewwi Sénégal la ñu wo Yewwi Askan Wi lañ ca waxante woon ñun musuñu wàcc charte jamais de la jamais pendant les ou quinze mois yi ma ko jiite lu ci neex ak lu ci naqadi nangu naa ko gàddu naa musuñu envisager mu ñu wax musuñu waxtaanee candidat wu Yewwi Askan Wi comme comme amuñu candidat wu Askan Wi kan lañ fi wor ak bi ñu dem tey su amaatoon ñu delluwaat moo def lu ma leen wax donc man ak Yewwi Askan Wi sama gannaaw bandak yéen ñi est une belle famille à laquelle nous appartenons nag kenn na mënuñu cee dàq kenn na mënuñu cee génne